gars yi ba tey yéen ngi gis fi nga xamante ne moom mooy euh, euh, cité kër góor gi ci rond bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, partisan Sonko yi ñoom it dañoo mujj ñëw xam nga di yóoxu di ci mais ñi nga xamante ñoom ñooy force de ñu ngi leen di pousse à ce que ñu arrière génn nga xamante ne mooy fi ñu nekk nii ñoom ñoo taxaw na le yéen ngi gis voilà journalistes yi ñu ngi taxaw policiers ñi ngi taxaw ñoom it dispersez université bu maanaam tasaaroo leen balaa. oui oui. ngeen tas dispersé vous vous voyez. léegi ñu ngi gis ba tey ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy jeunes yi ñu ngi dàq booy pour ñu génn fi nga xamante ne moom mooy fii ci cité Keur Gorgui voilà. allo waaleykum salaam. waaw waaw mais instant dañuy réglé waat kii réseau bi quoi dans quelques instants nga dugg ak incha allah. d'accord si je comprends. léegi nag lii moo moo fi am. mooy Sénégal waaw yéen a ngi dégg ñu joxe xam dispersez-vous tasaaroo leen ngeen dem seen yoon Yeah. takk der daal de toute façon ñoom ngi avancé gis nga ñu ngi avancé ñu ngi ñu ngi que ñu génn fii ñu ngi leen di pousse à ce que ñu génn fii waaw mais booy nee nañ jàmm la ñu woote booy nee nañ jàmm la ñu woote gis policiers yi ba tey ñu ngi dàq booy yi pour ñu génn fi nga xamante ne mooy fii cité kër góor gi ñu ngi dox dégg ngeen policiers yaa ngi daw di dàq booy policiers yaa ngi daw di dàq booy policiers yaa ngi daw di dàq booy booy yaa ngi nii jéggi nañu booy jéggi nañ tali bi taxaw di xaar policiers yi tamit faire face nañ ak ñoom di leen xool waaw ñu ngi nii taxaw fii ci rond si cité kër góor gi génn nañ sax fi ñu newoon fii ñu ngi ci couvre-feu bi ñoom ñoom itamit ñoom ñoo daje fii ci rombal bi face ak ñi nga ñoom euh, nga xamee ni moom moo di ci suufu gox bi euh, bi euh, fii ci rond-point bi cité Keur Gorgui gis ngeen ne ñii la police la bu ñu ci desee léegi yëpp jeex mais bëgguñu lii quoi. gis nga ñi nga xamante ñoom ñooy gendarme yi ñoom it ñëw nañ ñëw nañ comme rapport ñi ngi nii taxaw faire face ak booy yi ba tey booy ñi ngi taxaw fii nga xamante ni moom mooy en face orange bi mu doon loo xamante ni kenn bëggeewu ko woon nii ñu jege fee booy yi am quelques intervenant ci booy yi nga xamante ni ñoom ñoo ñëwal fii ci Sonko ak sonn di nekk baadoola. ay baadoola yu di lekk suñuy di ñu tooxal di ñu dóor. di ñu ko nangu. Macky ñii nii ñoo doon xeexal 2011 2012 eh. ñoo doon xeexal ñoo ñoo di la xeex ngir nga jóge suñu réew eh. réew mii nii réewu sàll sàlleen du seeru jàll jàll du seeru sar sar réew mii réewu Sénégal la ñoo ko bokk Macky Sall balaa balaa ngaa la Ousmane Sonko Macky Sall balaa ngaa la Ousmane Sonko di nga jaar di nga jaar ñu dem suñu bakkan Macky Sall bi ñu jëmal ragal amul bi ñu jëmal yow amul amul waaw yéen a ko dégg booy nee nañ ñoom ñoo doon xeexal ki nga xamante ne moom mooy Macky sàll tey ñoom ñooy xeex Macky sàll à ce que mu ci réew ñoom ñoo ko wax xaa ñu xoolaat benn intervenant système a jeex ñun ay ndaw lañ réew mi nii suñuy pa suñuy yaay ak suñuy papa yi danoo sonn danoo sonn ñun ay ndaw war ne tekk du dugg ci gaal yi di dem di dee dootu ko mi la ñuy toog ndax li ñuy wuti France ak Espagne am na ci réew mii nii problème mu njiit lañ am ay njiit yu bon yoo xam ne topp di ñu door ak di ñu noot ak di ñu toroxal ci réew mii nii dootuñ ko nangu Ousmane ko nag kooku moom suñu bakkan lañ ci tekk Macky u bu fekkee dañ ñu bëgg a rey ñun ñëpp ba ñu dee bis bu ñu boo ñu bëggee rey ñu dee ñun ñëpp jox nañ la suñu bakkan ndaw bakkan a ngi jël ñu pare dee ñu ak yow bu ñu xeex bu ñu xeexul ak yow fi alaxira lañ lay xaar fa la ñuy continuer ak yow suñu mais doo ñu rey Macky Sall sonn nañ si ñun sénégalais yi ñuy noot ñuy dóor lekkuñ naanuñ sonn bay bëgg a dee liggéeyu jànguñ ak ay njiit yu bon Ousmane Sonko mu ngi biir du génn du ruum buy ji buy ji wut ay tapra lañ nekk xam nañ poste affaire barke Seydina Mohamed 30 minutes ñoom ñu disper ñu ñoom ñu disper jeex bakk mais nag ñun engagement bi ñu jël suñu bakkan la ñu teg barke Seydina Mohamed li Seydina Ousmane wax la ñu def sa gerte sa waaw mu nekk ba tey si booy mais yaa ngi dégg li booy di wax. waaw waaw yéen ñu gàtt sa gàtt sa la ñu woote. mais tey yow lii lan nga ko mën a jàngatee. mais man personnellement yaakaar moo ne woon dina demee nii tey damay génn sama kër suba. Mhm. yaakaar moo dina demee nii. Mhm. yaakaaroon naa ni dina dem buy si jàmm. Mhm. mais lii nii dafay dafay dafay dafay law. dafay dafay dafay gën a moo tax dafay law. gis nga tey lii nga xamante ni booy déparé nañ ko. policiers yi dàqale ba ñëw fii. mën na pousser sax. mais mën na gars tey dañ ko waajal parce que boo xoolee policiers dañoo génnee ñi nga xamante ne di booy ba ci rond-point. waaw parce que boo jàllale muy jërële. waaw dañoo tamit procès Sonko moo moo moo ni mel. Mm. parce que Sonko procès yi nga xamante ni moom amee na ko fi yëpp avant bi parce que yi nga xamante ni yi wees moom ak Adji Sarr mais ñi la daan deme mm. donte nag tey dafa yokk. ndax tey tey tey gis nañu fépp la ñu barricade bu njëkk man assisté hmm. naa yëpp mais tey li ma gis ci poste de l'ordre hmm. ah. wax ma ma waaye waaye gëj naa ko gis kon kon tiit jot na man dama tiit tiit na tiit naa xala na mujj si jàmm rek ah, te bu ñu defee conférence de presse déggoo mu wala mu wax wax mu wax si dara kon kon dañoo yaa ngi dégg ñun dañoo dañoo dañoo am xel dofuñu Macky Sall dofuñu Sonko na fekk noppi la rek dofuñu si def ay ñëw leen bu leen ñëw rek ñun dañoo jàpp ne dañoo ne ñëw leen loolu la ñu wax comprendre loolu la quoi ñu dañuy dégg ñun du ñëwee dof yaa ngi dégg du ñëwee xale Sénégal dañoo bàyyi affaire xale man am naa 25 ans xale rek maa yëpp am naa soxna li may gis am naa soxna ku ma wax xale rek maa yëpp xale mooy comme deux ans trois ans quatre ans yooyu ñoo ñooy xale xamul dara te ñun ay ay mbokk jëmm lañ yaa ngi dégg am 40 ans mu ne xale rek mu ngi liggéey ñu maanaam suuf ma xale mag laa dañu naan dañu naan violent non violent wul amoon ñu daam gëm-gëm bu gëm isa man ni ma gëmee soow ni ma gëmee soow ah à 100 pour cent noonu laa gëmee assubi bi daal à 100 pour cent noonu laa gëmee tuumu yaa parce que liñ liñ gëm ñoom liñ gëm doogal ko suñ toog suñ koy ñoom moom lañ ñëw ah wane ko léegi ñun day ñëw fekk si leen man li ma gëm nii dama ko gëm depuis moo nekkee xale ba tey te mënu ma woon gis ku ma ku ma ku ma ci jàppale ma gis Sonko di ma di ma ci jàppale ma génn loolu moo ma génn loolu l'heure de notre révolution a sonné loolu moo ma moo ma Sonko 2019 ko woon Sonko mais bu ma wootee woo ma ci après laa ñëw wuyu si loolu la quoi parce que après la ñu yoon moo ko moo dafa war a def kon yoon yoon amul yoon yoon bu fi amoon yoon bu fi amoon bu amoon bu amoon dañuy dem wuyu ji yoon bu amoon ah doo dégg ñu taxaw naan wuyu ji woo wuyu ji woo yoor moomu Sénégal moo amu fi quoi barki yoor moomu Sénégal amul problème bu dëgg donc moomu waaw Imam Malick waaw boo yaa ngi noonu wutuñ gauche wutuñ droite amuñ plan B A lañ am Sonko la day dem bu demul kenn du dem sëñ bi nga bàyyi li ma lay wax bu demul du dem élection du am. ma bantuwaat foofu. Ah ah. Sonko mooy suñu plan A. Ah B C ba Z ba Z. waaw depuis A Y ba Z amuñu beneen beneen candidat amuñu plan B amuñu plan C Sonko rek la ñu am suñu bakkan la ñu teg moom la ñu yaakaar. donc Macky bu bu xalaatee ni que Sonko da ko da koy faagaagal pour mu mun a bokk si élection bi day sonal boppam. waaw sëñ ok léegi tey léegi tey bu fekkee tey Sonko ñi nga xam ne ku ne gis na ni tey dafa war a dem procès mu mel na diggante ak Mame Mbaye Niang am ñu bëri ñu bu ni buñ ko ne mën na tax ba du dem élection 2024. non loolu xel kenn kii bi xel xalaatu ko. Sonko seen xel yéen oui. ñun waa parti ci pro du mun bokk élection. Sonko day bokk à la à la kulli aal incha allahu rabbi suñ bakkan lañ ci teg. soog mais mais bu mu ngeen di def tamit suñu bakkan lañ teg lu ngeen di def. saay buñ fa yeggee dinañ gis suñ bakkan lañ fii teg amul benn problème loolu kay suñ sonko à la coulière yi bokk élection loolu lañ bëgg donc incha allah loolu day am. ay ca ama jàmm merci beaucoup mu mel ne kàggu li Cheikh yàmbul rek.